kenn nekkul en ligne sax salaamaaleykum bu nekkee ne gars yi da ngeen ma dégg da ngeen publier sax message bi gis ngeen man lu man na mu taw toog fay jooy man amul benn mindeef buy taxaw sama tànk ma ne ragal naa la man amul kenn kuy taxaw sama tànk man ne maa ngi wax sa ginnaaw lu ma wax a wax doomu aadama dama la koy wax nga may dégg sama dulkat nag du toog ci kër gi man ma toog si naaj bi li ngeen di wër messenger yi ngeen di bind ay joor wax ay joor wax li man nee naa leen ku dul Macky Sall sax bu ma la naree saaga nga taxaw dama lay saaga man ku ma def loo ma warul def dama la koy wax man ku ma gis na may waxee nga xam ne man du ma tàppet nee naa leen man du ma jigéen boo xam ne dangay toog ay raay ma neex laa déedéet ñëw ma tey pour messenger de dama leen bëgg xamal ne leen message yi jàll ci Hélène bañ naan man maa ko wax man Dior Dieye laa leen wax de doomu Saaloo Dieye namuma coco te ragaluma kenn sama duulkat ñi ngeen di def nag ay euh, message yu duul ay message yu complot message jeune boo xam ne amul dat message jeune boo yónnee message dañ lay wax date bi nga ko yónnee ak heure bi nga ko yónnee kon man bu ngeen nee maa bind xanaa ku yor làmminam di pat kooku du ragal a wax wala yéen da ngeen foog ne man tay bu Macky Sall taxawoon wala li may wax duma ko wax yéen da ngeen maa xamul bu ma connaissez assez mal da di dem ngeen laajte sama waa man maay kan kii am jotu bind xam nga am na koo xam ne dañuy jël ñun suñu message eh, suñu live yi bu ñuy saaga day dugal fi ñuy saagawee mais du dugal lépp man xam naa gis naa li ngeen di def lépp mais lijjantiwuma ko dama leen bëgg xamal ne leen kii jël message jeune yooyu def ko ci Facebook bi naan man joor la man bu dee man la maa tay su dee man la maa ko def man maa tay man awma lu may ragal faalew ma kengeen di wax faalew ma ka ngeen tiit man li jëntuwuma dara tooguma ci live bi pour am xaalis ndax soxloo ma ko man live lu ma man dama doon dund di fay sama kër avant may def live man damay lekk avant may def live di toppatoo samay doom avant may def live kon man yii safuma yii ngeen di def nii nag yaakaar ne man da ngeen may beseel ngir yàlla damay wax sama fulla bu ma kenn dagg dima ma appel di dagg bu nekkee ne nag dangeen di def seen messenger pour yaakaar ne man joor dangeen ngeen may wàccee wala di ma pamti pamte comme ni ngeen di def Hélène yaa ngeen di nax seen bopp ndax li si joor du si Hélène li si joor du si Hélène man du ma ne kenn bàyyee naa la ak yàlla man boo ma duutee dama lay duut te boo ma mbéjee ma saaga la man damay defante ba mu saf dama leen di wax lu leer ngeen dégg ko de juddoo ñambe gay ñambe gay bu dee yaa ngi may dégg bul yàq sama live baay ma ma wax sama fulla ñambe gis naa sa appel jëluma la bul dagg sama live waaw man nag li ci Hélène laa bëgg ngeen xam ne du ci man man kenn du ma pamti pamtee man nee naa leen ma di live pour xaalis mën naa toog quatre heures de temps sama biir di ko live ak yéen ma man sama biir kër lay tëdd weer bu dee ñu fay ma sama xaalis kon man ma ay live yi bu ngeen jëlee ay messenger naan man ak Hélène ñoo ko wax man nee naa leen ka ka ka leen di bindaloo sax faalew ma bu leen tax ma saaga ka leen di bindaloo faalew ma ko sax ba leen di faale yéen ñii di binda munu leen maa tere live li ngeen di wax munu maa fay ndax xam ngeen ku ma taal sama dañ ma xolal man nee naa leen man dañ maa bàkk ba pare yéen munu leen maa taal man lay neex ma arrêté live ma damay continuer sama live man lay neex ma wax neexuma du ma wax loolu ku si bëgg xoolal gi yow fi mu nekk nii yi ngeen di def coono la di bind ay joor ak ele ñoo doon wax li ay joor ak lii wala le man lijjantiwuma li ngeen di bind de barki Seydina Mouhamed saa ma waree live dama koy live loolu laamoon amoon pour wax sama fan si maa ngi leen di béggee ah ñu def noonu xam naa ba suba comme tey Assane day live ñu bàyyi noonu ba suba dégg ngeen maa ngi leen di béggee lu bëree bëree bëree bëri ciao ciao